Hadj Malick Gueye moom moo woote conférence conférence bi nag woote na ko pendant un mois ñu publicité ko ci rajo yi wax ko ci télé yi ñu def ko porte à porte réew mi journaliste yëpp <laughs> ñëw nañu nañ leen dem déglu ci ki nga xam ne mooy El Hadj Malick Gueye lan menge lan la bëgg wax ak ban déclaration lay def moom mi nga xam ne mooy borom lan menge El Hadj Malick Gueye lan menge. ta na trop waaye waay waay waay waay waay euh, wax dëgg yàlla yéen daal man daal man daal man daal aw ma seen fay man daal wax dëgg yàlla euh, gis naa ñoo xam ne bëgg nañ alaaj ma liggéey ba mu sori lool waaye yéen daal kenn raw leen waaw waaw waaw waaw man maa woote euh, man maa woote woote boo xam ne nag wax dëgg yàlla woote bu am solo la parce que bu nekkee ci réew mi président Macky Sall bëgg la te yàlla tax Euh, jël la ne wax dëgg yàlla da nga bëgg nekk sama côté sama côté te li lu ma soxla ci mobilisation ak euh, liggéeyal Sénégal wax dëgg yàlla euh, boo demee ba ci ba ci kanam réew mi am lu mu tëddee da ngay woote conférence de presse pour xamal nit ñi sa diggante président Macky Sall ak li président Macky Sall di liggéey moo tax journaliste yi nga xam ne ñoo toog masalla wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi toog pour pour déglu ma may xaar seen laaj jëm ci li nga xam ni mooy tax ma woo leen. Euh, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di sant euh, yaa ngi jël en direct télévision bi télévision bi yaa ngi jël a direct. waa kii waaw voilà jël moom laaj Alaaji Maalik nuyu naa la waaw maa ngi lay fay. waaw man la Thiaba Ndoye Lébu FM. li bugg gi FM ah, wax dëgg yàlla kontaan. Uh-huh. Eh, waaw li ma la bëggoon laaj man benn question kese la. waaw mooy maanaam lan nga yaakaar ne fi mu ne nii bu ñu ko euh, defoon tey ci ci réew mi dala tax maanaam réew mi dox ba Sénégal njaay gi xam ne sa réew maa ngi dox. Eh, dégg naa sa laaj. mooy président Macky Sall dafa baax euh, Marème baax yaayu Marème baax premier ministre euh, baax gouvernement baax Moustapha Niasse baax député yi nga xam ne ñoo fay nekk APR ñoom ñëpp baax Macky la dafa baax wax dëgg yàlla Macky da baax dégg naa laaj bi tontu naa la Macky da baax. Alaaji Malick nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. man la jaar FM kawoon. oui man dama lay laaj nan lañ mën a def ba saafara inondation bi. bi euh, mu jëlee ci yàlla. julli ci yonent bi di sant sama sëriñ sama wasila ki nga xam ne mooy sama a tey ak fi ma jëm muy président Macky Sall euh, Macky Sall baax Marème baax yaay Marème baax premier ministre baax gouvernement baax président assemblée nationale baax ak ki nga xam ne ñu nekk APR ñoom ñëpp baax loolu laa mën a tontu Macky da baax. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. man la ñanga ah. oui. Ah, FM Kaolack. ah sama dëkk Saloum. <laughs> waaw mais ah, question yi ñu la laaj ba tey tontu ci. waaw man nag dama lay laaj ba xam CREI bi ndax dafay continuer oui ou non. nga ne. CREI. ah CREI. waaw ndax dafay euh, continuer soxna si man loo xam ne du ma euh, ci bu ma julee ci bu ma yàlla sant yonent bi julli sama sëriñ di ñaanal sama sëriñ président Macky Sall sama la yàlla gudd fan te ak soxnaam ak ñëpp Macky dafa baax marim baax. IMRM baax premier ministre baax président assemblée nationale baax waa APR baax Macky mu baax. la ci mën tontu salaamaaleykum euh, maaleykum salaam monsieur El Hadj Malick Guèye waaw man la Momadou Thienti waaw Féexal FM waaw waaw waaw ah Thienti Thienti waaw voilà nekk fële ci Kédougou ah waaw waaw wax dëgg la voilà euh, ma ah. question elle est la suivante waaw parce que maa ngi seetlu sànq ba léegi on t'a posé plusieurs questions waaw mais dafa naa tontu woo ci benn waaw voilà man nag li ma lay laaj waaw kenn mooy El Hadj Malick Guèye kenn bu dugal est-ce que remaniement ministériel waaw possible fii ak deux mille hmm? wala possible. Hmm? hypothèse yi nga xam ne moo dégagé wu. Hmm? loolu lañ bëggoon a xam ba xam ndax mun na nekk wala na nekk wala bu fekkee nekk na est-ce que am nga yaakaar ne di nga dugg ci gouvernement Macky Sall comme ni nga ko bëggee boobu léegi. Euh, maa ngi jël ci bi di ñaan sama sëriñ Sall sa musi la yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Macky daa baax maram baax yaay maram baax président assemblée nationale baax ñëpp baax ñu ànd ak APR baax loolu la ci mën a tontu. tontu ci question yow it boobu ba tey tontu wuloo tontul. ma ah oui waaw ma ma demee tontu. waaw dëgg naa waaw man kenn mu dugal. déedéet kenn déedéet déedéet déedéet waaw dama ne man maa maa leen woo maa leen woo da nga may dama leen woo dëgg ah, ah, day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg may déglu dëgg may déglu wax dëgg yàlla euh, man maa leen woo euh, euh, conférence de presse pour ngeen xam ne Macky Sall dafa baax li ngeen may laaj yëpp kenn du ma dugal kenn du ma dugal parce que man man man li ma xam rek laa wax Eh, dama ne ino eh, dama ne ay crédit inondation yooyu yëpp dugg dugg xam la bëgg xam su ma seetee yàlla eh, set yonent bi julli sama baax yaayam baax yaay baax waa APR baax loolu am waaw waaw waaw waaw dëgg na waaw way bu leen fecc la way way mbir mi baax Macky moo baax baax way baax way baax moo baax maaw baax waaw waaw dig di baax way yaay waay nga ni waaw dig di Iway waaw way Iway way way way way way way way waaw way waaw waaw way way way way way way way oui oui dafina mooy dina baax waay oui oui oui oui masala oui ya baax premier ministre baax député yi baax marem baax yaay marem baax APR baax lan menge baax gouverneur baax premier ministre baax ministre baax Macky moo baax iwuy wëy iwuy makee baax makee baax waaw iwuy iwuy wuy yooy wuy wuy yooy wuy wuy makee baax wuy makee baax wuy makee baax wuy mareem baax yaayu mareem baax waa premier ministre baax assemblée nationale baax député yi baax garde corps ba waa palais bi baax ma kay ba wuy yooy yooy wuy yooy wuy yooy waaw wuy yooy wuy yooy wuy yooy

Macky émergence i wëy ma yaa baax Macky ma yaa baax